seet si lii fi xew nga xam ne ñun ñëpp la laal ndax kenn ku ne boo yoree économie xam nga ne nit yàqule yàqu yàqule na fi loo xam ne laal na la ndax yaa ngi doon liggéey ak moom surtout état bi nga xam ne nii activité économique bi ci loxoom la nekk masawu xalifa général des Mourides sëñ Muntaxa Bachir masawu sëñ Ablaat Ka mii bi nga xam ne nii mooy maire Touba ba ba pare nekkaat premier vice président chambre de commerce bu Diourbel masawu délégué marché bi masawu association assis ak association yeneen yi fi nekk yëpp di wax rek ne. képp kuy liggéey nga yàq-yàq waxuma la sax nga lakkale waaye nga toog benn fan wala ñaari fan boo liggéeyul rek lu metti la kon nag li ñu war a jiital rek mooy muñ ndax yàlla moo ñu ko wax yàlla da daan jël yonent bi ak ñim àndal nattu leen ah ba nga xam ne nii dañuy jaaxle sax ba naan ana ndimbalu yàlla ma masathumul ba'sa wa daraaw wa zilzilu hatta yaqulu rasul amoon amanu ma'ahu mata nasrullah kon nag suñu yàlla nattoo ñun nañ ko muñ loolu mooy ab jàmm waaye nag jéem nuñ mën a góor góorgóorlu reprendre suñu liggéey waaye dox ci yoon woo xam ne tamit danañ fexe ba loolu duñu dal te loolu niñ mën a fexe ba duñu dal ndimbalu état bi la ndax kat man fii li ma fi gis nit ñi tabax nañ seeni centre commercial waaye sécurisation ba nga xam ne nii bu dara amee dana dana yem fam yem loolu luñ war a taxaw la kon nag président la république yónnee na fi yónnee fi ab lim cinquante millions loolu dañ ko koy gërëme ndax ndimbal moom lu la ca nit jox rek ndax moom lañ dénk alal réew mi lu mu ci joxe rek dañ ko war a gërëm man tamit en tant que loolu ma leen wax ma andi woon sama participation tamit xam naa c'est symbolique muy deux millions ah ma teg ko ci loxol maire xam naa mu xool ci loxol ku mu koy teg di ñaan tamit opérateur économique yi wa taawanu alal birri wa taqwa nañ jàppalante rek kenn ku ne loo man ñu dajale ko jàpp leen ko ñoom xalaat ñaan gouvernement bi tamit programme yi mu am pour man koo def mu ñëw laaj leen ñoom lan lañ bëgg ndax wax dëgg yàlla li may gis gouvernement bi am na yéene pour tabaxaat marché bi waaye li ci ëpp solo fi coow li ëpp mooy dañuy dem xalaat dikk ne lii la ñuy def ñu dikkee ñu rejeté ko nañ dikk laaj ñu nekk ci marché bi ñu concertation ne nan lañ ko mën a defaree ba ñëpp xaj fi mu am sécurité jàmm am fi ah yaakaar naa lépp lu am loolu yàlla danañ ci dimbale man daal noonu laa ci gisee loolu rek laa leen mën a wax mënu maa wax lu ëpp loolu metti na ma lool nag ah waaye uh, doomu uh, kii sëñ Abdou Lahad da daan wax ne doomu aadama dafa wax ne ah mënuma naqari lool ndax su neexoon yàlla du am yàllaa ko dogal di tax mu dogal ko xam na ko kon yàlla na yàlla nañ ko yubadillaahu sa hasanaat yàlla na yàlla def ba nga xam ne nii lu lu ñaaw li dana ko changé muy lu rafet